présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal waaye nag na ko moom Macky ne loolee askanu Sénégal du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg te ba ñu ñu ci nobbu ñu sañum guerre Ousmane Sonko nee na réunion guddi yi nga xam ne moom la ñu amal ca Palais ba ak ci Mermoz lépp yëg na waaye nag loolu lépp li ko tax a jóg mooy ñu bëgg ko éliminer ci yi Ousmane Sonko nee na Macky la mën a naa wax ne dafay sampa ndëndam nekk candidat biir ne nañu ànd dem éliminer Ousmane Sonko waaye nag Ousmane Sonko nee na tamit dàqul benn yoon Macky Sall taxaw ne demul candidat waaye tamit Ousmane Sonko du dem Ousmane Sonko nee na tamit loolee dàqu ko waaye nag su ko Macky Sall doxalee maanaam loolee ab la boo xam ne war nañu ko càmbar war nañu ko waxtaane ndax am na ñenn ñoo xam ne su Macky Sall taxawee ne nekkuma candidat ñoom xeex bi nga xam ne ñoom ko doon xeex dañu koy bàyyi te xeex bi dafa wër a wëy Ousmane Sonko ne Macky Sall su taxawee ne du candidat mën naa jéem a taxaw ngir nag ñu jéem a jàpp waaye nag bu may jéem a jàpp loole nag askanu Sénégal waruñu ko seetaan te Ousmane Sonko nee na Macky Sall mënu koo arrêté bu ñu tegee mbiri ci yoon ndax bu ñu ko tegee loxo li jëmoon ci wàllum àtte bi lépp dañu koy annulé kàddu yu Ousmane Sonko la moom jiitul Pastef ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na comme ni nga xam ne moom la ko baxoo di waxee woote lu jëm ci wàllum a Ousmane Sonko nee na xeex bi bu ñu ko commencé waate maanaam bu ñu ko bàyyi te xeex bi jeexu la Ousmane Sonko nee na mënuñu fi nag nekk sumb ay xeex di ko xeex ak a xeex bi bu ñu ko commencé waate nañu ko yeggalee il faut terminer le travail loolee kàddu yu Ousmane Sonko la journal bi de Le Quotidien yor yora Ousmane Sonko daan nay wax ne Macky Sall juróom-ñaari weera moo ko desee ci bopp réewum Sénégal maanaam ñu pare ak mooma waaye nag mbir mi li mu laaj a mooy fulla ak fayda jom ak fit yéen kaay gi de Le Quotidien xëy diñu xibaar naan ñu Macky Sall tey ji lay wax tey ji lay yi tey lay lit askanu Sénégal wala mu firi la ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature ma waaye nag li am ba desal Macky Sall 2019 moo fi waxoon ne bu ñu ko falee du présenté wu ci élection présidentielle 2024 wala Macky Sall dafa bëgg nag la mu wàcc woon mu daal di koy lekkaata wala maanaam ci gàttal Macky Sall dafa bëgg a def maa waxoon waxeet loolee ab laaj la te Macky na nag bu jéemee def ma waxoon waxeet loolee mën naa yàq mbooleem li nga xam ne jot na koo réaliser journal lu ma jàmbal jaan bi mooy wax nee na tamit Macky Sall bu taxawee ne du bokk ci élection yi maanaam APR mën naa pëccëxoo ndax division bi mën naa am kenn ku nekk jaar ci genn wàll ndax Amadou Ba mi nga xam ne moom la gars yi di wax sax ñu bari mën nañu see bañ a ànd bu moom la ñu samp même bu dee Abdoulaye Daouda Diallo la ñu samp am na tamit ñoo xam ne mën nañu see bañ Macky Sall mbir mi moom dina am ay conséquences politiques yoo xam ne yu we xatt lay doon journal bi a Le Quotidien moo xëy di ko wax L'Observateur xëy di ko dëggal yéen a kaay gi de La Tribune nee na en tout cas APR ca diwaanu Fatick jamono ji pëccëxoon na lool ndax mouvement Fatick moo ñu ñor ñoom nag d'accord ñu benn yoon ci ñetteelu candidature Macky Sall ndax ñoom nee nañu Macky Sall amul sañ-sañ di sampan dëndëm ci élection présidentielle 2024 waa mouvement Fatick moo ñu ñor ñoo ko xamle maanaam fa Macky Sall fekk baax ñoom nee nañu ànduñu ci ñetteelu candidature Macky Sall journal bi de la soleil xëy nag fësal ci xëta njëkk daan na fin suspense maanaam xiini miina gi nga xam ne moo amoon ci lu jëm ci Macky Sall day bokk ci élection présidentielle la lépp di leer yéenekaay gi di Direct News nee na Macky Sall moo joxe rendez-vous tey jii journalu Pape Diogaye Faye na ko Macky moom la ñu génn bi muy dalal ñi nga xam ne ñooy maire yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar si la leen wax ne leen altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal dinaa wax ci lu jëm ci wàllum candidature bi maître Omar Youma ci biir journal bi ñoom lu ñu bëgg daal lenn kese rek dong la mooy candidature Macky Sall ci élection présidentielle 2024 ba muy daanee la Mame Boye Diao moom tim jël kàddu gi nee na amul calcul amul lenn Macky Sall mooy seen candidat yéen kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Ngouda Fall Kane nee na en tout cas li am ba ak dalug réew mi ci loxol Macky la nekk yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Macky Sall keroog bi nga xam ne ci lay recevoir maire ak président conseil départementaux yi nga xam ne ñoo bokk ci coalition Bokk Yaakaar nee na leen nag voilà maanaam il faut ngeen faire face il faut ngeen organiser wu ndax na bu ay nit jógee bëgg a yàq moomeelu askan wi il faut ngeen organiser wu maanaam wut ñoo xam ne ñooy jàmmarloo ak ñooma yéen a kaay gi de la tribune nee na kàddu yooyu nga xam ne Macky Sall yëkkati na ko kàddu yu garaaw la kàddu yu dangereux la Seydi Gassama ci journal bi de la tribune ne na kàddu yu Macky Sall yooyu kàddu yu garaaw la waaye nag ñi nga xam ne ñooy maire yi bàyyi boo ñu def attention bàyyi boo ñu def doucement ndax képp koo xam ne recruté nga fi ab nervi fii bu dalee ci kaw askanu Sénégal mën nañu laa topp fa mbaxana doonee benn yéen a kaay gi di Walf xëy dañu xibaar naan ñu tëbaski gi nga xam ne moom la ñu génn bëri na ñoo xam ne ñu siiw la ñoo xam ne ci biir kaso bi la ñu tëbaskee waaye nag li am ba desal liste bi moom kenn mënu ko fee liira journal bi nee na Bassirou Diomaye Faye ci kaso bi la tëbaskee Serigne Assane Mbacké ci kaso bi la tëbaskee Fadilou Keita ci kaso bi la tëbaskee Pape Abdoulaye Touré ci kaso bi la tëbaskee Cheikh Bara Ndiaye ci kaso bi la tëbaskee Cheikh Omar Diagne ci kaso bi la tëbaskee Karim Xurum Xax ci kaso bi la tëbaskee Oustaz Assane Seck ci kaso bi la tëbaskee liste bi gudd na bi di Walfadjri moo xëy di ko faram-fàccee